waaw bisimilahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen siyaare bu baax a baax a baax ñu newoon fii tey nag ci Touba Argentine di ñaar ki fanu Cheikh Ibra yi ñaar fukki fanu koor gi ku ne xam ne bis bi la Serigne la Cheikh Ibrahima woon ak Serigne Touba waaw mu mel ni bis bi nag li sabab yoonu murid lu bari ci la bokk waaw ñu ñu daje woon fii nag ci Touba Argentine di ko màggal donc euh, doon yendoo jàng xasaayid Serigne Touba yi yendoo berne yendoo jàng alxuraanu karim yendoo sikar ba fi mu ne nag ñu dem ba toll si jeextal gi ñu mu mel ni dañoo taxaw ak jëwriñ sëñ Assane sëñ Assane Baye Fall nga xam ne mooy jëwriñ ji waaw xam na dañ koy jox rek ay mu sànni ay kàddoom ba pare wax ñu tamit bis bi maanaam li xew ci bis bi tey ak lépp ak mbégteem ak kontaante fu mu toll ndax xam naa bu waxee rek dina waxal mbokki taalibe yëpp sëñ Assane ñu ngi lay siyaare baax a baax a baax. jaajëf murit bi jërëjëfati delloo siyaar bu baax di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Touba Argentine ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziara tey jël nuyoo bi ak ziar bi di ci jiital Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou di ñaan suñu borom mu yàgg fi lool te ànd ak wér naka noonu Serigne Cheikh Jëmb Fall di ñaanal Serigne Sidi Muxtaar mbakke suñu borom yokki te taf ñu ci barkeem di ziare mboolem murit yi ci dëkk bi rek ci njiital Serigne ba jëwrinu Serigne Touba ndax ni ma koy faral di waxe rek bu jëwrinu Serigne Touba teewee moom jëwrinu Cheikh dootul doon dara ndax Serigne Cheikh Fall amutoon lu dut sëñ Tuubaa amutoon dara sëñ rek la amoon kon ñun nag foofe la ñuy teg suñub tànk bés bi nag di ci bëgg lool ak mbokki taalibe yiñ ko àndaloon yëpp rek waaw ci liggéey bi ndax wax dëgg yàlla yendalun fanaanalun seen doole seen poste amut lenn loo xamante ne ni rek bàyyi nañ ko ci ci bés bi kon ñooñee ñoo yelloo ngërëm ñooñee ñoo yayoo ngërëm kon nag ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen jaare waaw sëñ Assane xam naa ne du ñàkk nga waxal ñu si Cheikh Ibra lenn si yoon bi ak daje bi mu daje woon Serigne Touba sabab bis bi nga waxal ñu si lenn rek am loon si waxal lu ndaw ndaw rek bokk taalibe yi bëggee ci sante ko Serigne Touba bu wér a wér a wér a wér sante ko Cheikh Ibra. waaw jërëjëf Ba Diorine diggante Serigne Touba ak Cheikh euh, ci zaahir ni ma ko mën a waxee rek dañoo ànd ba dara du dara ànd ca ba ñuy ndaw ci zaahir ndax boo xoolee Cheikh Ibra bi muy ñëw kër sëñ Bamba mi ngi am fukki at ak juróom-ñett fukki at ak juróom-ñett la indaale biir kër Serigne Touba ndax su ma juumul mi ngi gane jamono 1855 ca diggante njëb ak wàqi dëkk bu ñuy wax Touré Atoumane. bi muy ñëw ci sëñ Tuubaa mi ngi ñëw ci sëñ Tuubaa 1883 1883 googu boo ko calculé xam naa ne comme sama njàngum nasaraan <laughs> leerul maanaam boo ko calculé at yim lay jox du bari at yim lay jox du bari diggante boobee mooy at mi Maam Mor Anta Sali làqoo waajuru Serigne tubaa ca déwén sa la fa maam si Ibrahima Fall ñëw boobee nag la yoonu murit taxaw ndax it eh, la ca xew yëpp ak seen diggante. Euh, xëy na du ñàkk bés ñu toog leeral ci leeral yu am solo murit waaw sëñ Assane kaddu yi am na solo kaddu yi am na solo lool xam naa sëriñ Cheikh Sidi Moukhtar Mbacke nga xam ni moo fi nekkal sëriñ Touba nga xam ni wax dëgg yàlla teewaayam rafet na lool ndax ci suba la fi ñëwoon boobu ba tey teew teew fii diggu nge mbokki taalibe yi te lu ñu am nag moo ngi ci kon sëriñ Assane xam naa dañ lay jox kaddu yi nga sant ko bu baax a baax ndax moom boo ko santee rek mën sant nga ñëpp sëñ Cheikh Sidi Moukhtar waaw jërëjëf ndax cant gi moom ci Serigne Cheikh la war a bàyyeekoo jëm ci taalibe yi ndax bésub maamam la woon moom lañ doon taxawal ndax boo xoolee Mbàkke Kajoor la Serigne Cheikh su ma juumul ganee jamono Mbàkke Kajoor googu fala la bës bés bii nii ñuy màggal tey fa la xewe woon wëlbatiku diggante Serigne Bara ak Cheikh muy lu doy kéemaan diggante Serigne Touba ak maam Cheikh ma Fall ndax foo tudd sëñ Baara rek tudd sëñ Touba tudd Cheikh Ibra kon bés bi bésab maamam lan doon màggal di ko ñaanal nak suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ak ak ah, wax dëgg yàlla ba li mu naa la liggéeyal maamam jox suñu borom jox ko ci lu kawe njox waaw jërëjëf sëñ Assane kàddu yi am na solo lool a ah, am na loo an mosal mbokki taalibe yi de xam naa nag tey moom faaw mu am ndax CM bu gaa yi xewlee da ngay ñëw bégal leen yow nag boo xewlee kon nag xam naa li nga daan mosal mbokk taalibe yi neex na lool te dañoo man man damaa neex ma bëgg nag nga may ma ci tuuti waaw ci olofalu sëriñ Mbaye Diakhaté ak sëriñ Moussa Ka yi waaw moom sëñ Moussa Ka da di géej sëñ Mbaye it di géej ndax sëñ Moussa Ka daf ne nee na tuuti kon moom Serafal lay waxal de waxut ak kenn dana tuuti kon mu dem fekki sëriñ bi lemi mbiram ba kenn du mos ci baatinam lu dut ci bés ba ñuy texe kon loolu rek daanaka dafa ub lépp rek barke sëñ Touba ñi ngi tuubal ñëpp di jéggulu ñëpp di balu ñëpp ak di leen wax ne asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw ndeysaan jërëjëf sëñ Assane xam naa loolu moom boo ko déggee xam ni sëñ Assane moom macha allah ndaanaan la waaw xam naa nag di duf si nag bi xajul si cin li loolu moo ko waral kon xam naa dañuy tàggatoo rek sëñ Assane di la siyaare bu baax a baax di siyaare bu baax a baax sëriñ Gora di siyaare bu baax a baax a baax waa Touba Argentine TV yëpp di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala télé bi yàlla télé yi nga xam ne moom la moom lañ si àdduna yëpp yal na Serigne Touba nangu liggéey bi bu baax a baax a baax a baax a baax li Serigne Touba doon wax naan yaa maalikal mulki li wasanta duna jawan fil mulki wal malakooti dëhër yàllaahu yal na na télé bi àggal ci li moom mooy àggale liggéeyal Serigne Touba waaw kon xam naa kon dañuy siyaare bu baax baax di wàcce foofu suñu kàddu rek jëf di daan warhamatan wa barakatan barke Cheikhul Khadim ak xasaay di jërë jëf